am nga jóg dox ci tànku jàmm Fadel comme niñ ko xamee ci yow wax dëgg fa yàlla que boo ko defee def nga li nga xamante ni miin nga ko lool mais def nga li nga xamante ni yàgg nga koo def waaye tamit kenn du Lamine bi nga xamante ni ah, moom moo ñu woo ba biir këram ñu toog waxtaane ko ak ki nga xamante ni moom moo di nijaayu Amina waaye nag dafa am leneen loo xamante ni moo am ci diggante bi mooy borom kap boobu nga xamante ni ñëpp tafoon nañ ay ay photom di ko waxtaanee ku ci nekk naan borom kap bi dafa bokk ci ci ñi jël wari bi ñi naan dafa bokk ci ñi nga xamante ni ñoom ñoo jël tuuma gi man a tey ji borom kap boobu bu baale di am. Pathé mhm. ñu ngi may xamal ni. Mhm. message ba doon sikki sàkk wàcc na. Mhm. ñoom sept personnes yëpp placé na leen ci mandat de dépôt ba ñoom tey jii rëbës la ñuy fanaani loolu muy kaddu yu wérte wóor yoo xam ne ñi ngi may xamal ni kii di nabu la ñu njëkk a yéegal euh, def li ñuy def waaw. yéegal par benn par benn ba sept personnes yëpp épinglé nañ leen actuellement. seen guddi gu njëkk tey mooy fanaan ni rëbës te du yàgg dara ñoom dégg leen gis ñoom ñu fexe leen waaw ñoom daal loolu ba information bi kon Dakar Buzz mu ngi noonu ñooy dem noonu ñooy dem noonu ndax ñoom ñëpp mandat yëpp suñu mandat ñoom ñëpp place na leen si mandat dépôt ñu ko doon Seydou oto baa ngi noonu résultat yi wàcc na lii ba tawar mooy ñoom ñëpp placé na leen seen mandat dépôt ñi ngi rëbës muy seen guddi gu njëkk ña nga noonu ci ba ña ngay dem ña ngay dem loolu moo tuur muuru noonu moo muru noonu ndog ci biir ña nga jëm rëbës ñu ngi noonu jëm rëbës ña nga jëm rëbës ñu ngi noonu jëm rëbës gis nga ko noonu naboo si bi kon loolu mooy pen bi d' accord nga noonu Seydou résultat yoo wàcc nag yëf yoo wàcc na mandat dëpp rek teel ma Seydou ma wiiri ne waaw oto baa ngi noonu di dem Seydou oto bii lañ leen dugal am dagal ma oto bi oto bii lañ leen dugal ñu ngi noonu jëm rëbës ñu ngi ni oto bii lañu jëm ñoom ñëpp sept personnes mandat dëpp lañ jëm ña nga ca biir ñoom ñëpp ñu ngi noonu mandat dëpp la yóbbu nañ leen am dagal ma oto bii ñu ngi noonu di jëm rëbës kon ñoom tey 100 mètres la ñuy fanaani coow li mu ngi noonu ñoom ñëpp kon liñ doon xalaat mooy jàpp nañ ni ñoom ñi ñoo rey ki nga xam ne moom mooy avocat baa ngi ne suñ ko mënoon am nag kon ñoom day ma dem ah, damay taxaw kon ñoom ñii tey ñoom ñoo teel ma ñoo ko noonu Seydou gis nga ko gis nga ko noonu hmm. euh, Seydou gis nga ko noonu tey am ko réaction ah waaw Fadel comme ni mu ko waxee man damay wax ay ay ay waxi Fadel Jali muus la soo déggee mën a jali muus la mooy saa su ne heure boo ko laalee dañ ci gis lu la naqari mu nekk nit koo xamante ni tey information yu muy joxe juste et lay doon ñu nekk nit koo xamante ni tamit euh, man ba mu nee ba mu ne bërët di àddu ci li nga xamante ni moo di mandat dépôt bi dafa def loo xamante ni dama ci tiit torop mais gis nga ma nga noonu am na ko muy waxal wax naa ak moom waaye déggoowul ak kooku mu mel ni ñu continuer waat dem ci keneen Ah, ma ngay wax ak ñooñu waaye mu nekk mbir moo xamante ni damay wax ni sénégalais yëpp bettuñu ah, amuñu ci mbetteel waaye tam mu nekk mbir moo xamante ni tamit képp koo xamante ni dégg nga ci mandat dépôt rek ah, amoo ci mbeteel coow la boo xamante ni fattoon na nit ñi sonoon na nit ñi li ay mbalax lay def de waaye fayal mbalax yi yow voilà voilà waaye xaw naa yàq sama nopp yi mu ngi noonu mbir la moo xamante ni yàgg na ci yëfi sëñ bi sëñ ñu ngi fil bi sëñ bi wàcc fil bi waay. waaw lii dina dem kay parce que am benn parce que lii lépp teel teel a léegi na ko dëkk teel posam teel ma léegi nag léegi ñu ngi daw parce que moom bi fil bi xaw ma sax la wàcc na fil bi muy lu am solo loo xam ne tey lu doy waar loo xam ne tey gis ngeen ko tey résultat yi wàcc na Seydou moo ñoom ñëpp njëng ci ah Seydou waaw rocc ko rocc ko rocc ko ñu de waaw rocc ko waaw kon beneen problème laa foog ne bii nekk problème du problème boobu kon du problème mu Nabou Leye beneen problème la boo xam ne tey mais daal li mooy Seydou mooy décision bi wàcc na décision bi wàcc na. décision bi wàcc na mooy que ni mandat dépôt la yóbbu na leen la ñëpp seen mandat dépôt. waaw jëlee kii mbay mbay loolu. waaw ah, yow problème bi wàcc na tey li ma jaaxal mooy tey li mu doon jot. waaw ah. mooy ñëpp passé na leen seen mandat dépôt jàngatee lii wàcc. waaw Fadel comme niñ ko gisee noonu euh, yëf yi yaakaar naa ne waxtu wi am na fu mu àgg parce que juge d'instruction bi nga xam ne kon moom moo euh, yoroon dossier bi tey jii dafa mel ni. information bi mu am mooy placé nañ leen sous mandat de dépôt auto policiers yi jàllale nañ leen rawale nañ leen donc kon fi mu ne nii lu ñu war a mën a def rek ngir topp réaction yi nga xam ne donc gis nañ kenn si koo xam ne moom nee na xaw ma rakku euh, rakku waa ji la xaw ma. nu dafa jaawaale parce que moom nee na problème du problème mu Nabou Leye beneen problème la. ah d' moom beneen problème la kon cas bi concerné wu ko kon Fadel lu ñu mën a wax moom mooy. Euh, pour le moment dañuy topp information yi rek. parce que dafa sensible lépp lu ñu ci informé tamit dafa war a nekk loo xam ne yaakaar naa lu leer la war a doon si loolu. d'accord comme yaa ngi liggéey bu ma jël sa temps bu ma jël sa temps. ma xool li may li may dégg dëgg la wala. waaw dëgg la dëgg la ñoom ñëpp placé na leen sur mandat dépôt tey daal Diouf loo ci mën dégg tey moom seen guddi mooy seen guddi gu njëkk bu ñu war a fanaan yi rëbës. ñoom seet yëpp euh, ñi ngi may xamal ni euh, njëkk a yéegal ci baar bi moom Nabou waxtaan ak moom wax li nga xam ne moom moo ci am ba épinglé bosam féete boor ñeneen ñi tam noonu la même chose ba sept personnes yëpp épinglé leen waaw parce que du neex a parce que procureur nag mooy dernière décision bi. bu génnee décision bi wax nag kon li wax ci la ñu sukkandiku ne moom mooy li am. kon dañuy daal di procureur. ndax procureur am na ñu miin foofu am na ñu ko miinul. waaw xam a xam prison. dana doy waar tey mii lu naqaree wax mii lu yow xam nga man xam naa parce que bii dafa naqaree waxee. te du lu may wax parce que li li ma bëgg a xam daal mooy que ni doy na waar metti na pare waaw léegi d' accord d' accord

ndax dinañ mën a wax ka wuy ma may leen ñaari baat rek yéen bokk ngeen ci ci ci naw ñaari baat jàpp si rek jàpp si non non jàpp si non non muy lu métti muy lu doy waar loo xam daal gis ngeen ko ah, lu ci mënti am daal mooy kan la

keneen kontaan naa gis naa liggéey bi démb li nga wax am na solo. parce que micro doo ko jot noo ko nit ñi wax. kii léegi laa ko ma ne dafa faral liggéey ma ko spécial. loolu mooy yoon. kon waaw waaw bu nga ko bëgg wax. waaw waaw. mais Pikine war na mën a àtt tuuti Pikine yaa la. naka Pikine waaw Pikine ñaari baat rek nga sensibiliser rek parce que tam doomu Pikine nga liy xewee Pikine tam yow en tant que doomu Pikine Pikine Dakar sa gis-gis ci li nga xam ne moo wàcc ci tribunal bi tey. waaw métti na ma trop ndax lii ñëpp la métti waxuma la Pikine mais àdduna la métti nguur gi dafa war a jël matuwaayam matuwaayam mooy lan ku rey ñu woo la ba si penc bi daaj la fa ñëpp ñëw taxaw ñu rey la. dans la publique waaw ñu sol ay pën a taal la ndax foofu lañ toll nekk ba sa biir kër ñu fekk la fa la. ko sécurité ah war nañ am sécurité dëkk bi lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw. ndax njort woon nga li am mandat dépôt ñoom ñëpp. waaw lii lu leen def baax na ñii nañ fa nëpp ndax lii dafa ñaaw ay doomu pigi na ko def mais ay doomu pigi lañ rey kon nañ fa nëpp war ñu taal leen ñoom ñëpp ndax lii dafa ñaaw fii ba mu amee ba léegi kenn nelawatul kenn lekkatul ndax lan crime bii lii dafa ñaaw deru pigi lañuy yàq ñu saa ñu jógee ba defar pigi ba mu baax. une image bu baax am ku jugee fee ñëw yàq deru Pikine ah suñu doonul dara me lii dafa métti quoi ñu ban kon Pikine kañ lay changé ñu ñuy nekk di communiquer pour Pikine tegu si kaw ñoom mu ñuy dégg mais di def ay ñaaw teef lii ñu ngi ñaaw lu trop barki sëñ Fallou sama jabar sax léegi pour mu neraw di nee na man léegi foog ma tëdd barki sëñ Fallou ma nekk ne ku ma dama nga tëddi fii dara du xew mais wax na dëgg dafa tiit waaw ku tiit jaaxle pour nga tëdd sax yow foog sa jabar nga sa jabar doog a ñëw xëcc la pour nga tëdd ndax lan tiitaana boobu pour lan la ñi ngi dem Magal sax àndul ñox suñu sogo ndax luñ fi bàyyi dafa metti am loo xam dafa metti Pikine dëkkuwaay la fii ay kilifa fi nekk ay noobu la fi nekk ay responsabilité fi nekk ñaari bakkan tay Pikine ñun dëj leen ci dëj lañ nekk ñun risaara ngi nii berki démb dafa lap moo ñaari copain am amaan na keneen kuñ dóor goon amaan na keneen ku ñu rey baat lii bakañ kañ léegi lañ ko ko bëgg def salange lu ñaaw la ñuy def salange damay laaj rek naan lu ñaaw la ñuy def salange lii kenn rafetlu ko lii dafa ñaaw lii dafa ñaaw fii nag sa loxo bi soo bu ko wóolu amul xarit amul lii àndandoo fii ay àndandoo rek a fi am àndoo yu bon ñu lay teg bët bëggoon ñu sol bëggoo nga def benn affaire boo xam ne da dem si kanam boo jox sa ñu fàqatal la gor say tànk lii dafa ñaaw dafa war a jeex dafa war a jeex maa ngi jéegul nag. mënu ma wax kàddu yooyu Pikine Dakar wax muy kàddu yu am solo yoo xamante ne. Fadal ku bëgg ñu nga ma nga nële ku ñeme dugal ci bëgg wax na ay kàddoom. Pikine wax na ay kàddu. Fadal ku ñeme dugal am daal mooy résultat yi fi mu tollagum. mooy que ni résultat yi wàcc na mandat dépôt la ñoom ñëpp yóbbu na leen placé na leen mandat dépôt. tey muy la ñuy fanaani seen guddi gu njëkk ci kaso ca ca kaso ku jigéen ki xam naa ne camp pénal la jëm ku góor ki moom ñu góor ñi mën na leen a yóbbu rëbës ndax bokku na fu nu nekk ku jigéen ki sama wetu kër la jëm ndey sa wetu kër la jëm camp pénal waaw ndeysaan lu metti loo xam ne nag lu metti euh, metti ndax yaay la am na ku jigéen kuy intervenir ni yow kaay bu mën a kaay waaw dina jafe de Diouf nañu xaar mën naa mën nañu xaar leneen mën nañu xaar leneen. ndax yu mel ni groupe loo bi dañuy am groupe mais Fadal gisuma leen mais xam naa ne rëccu am na ci ñoom. waaw yow tam xaw dama ne la ak ba ma ngi wax sama ndorteel wax ak lu mën a am ki def lii mi ngi rëccu ak lu man am rek tey wéet na ni suma ma yëgoon du ma def lii bi ñuy génn sànq sama yaram dafa daw ndax kaar bi. bi mu leen yabee oto bi yuuxu wutale ñoom tey foo xam ne tey miinu nu fa xamuñu fa metti na doy na waar muy lu doy waar tey jiital léegi moomatoo sa bopp tëddal nga tëdd taxawal nga taxaw waxal nga wax. heure ngay lekk mënal too sa bopp dara. heure ngay génn lii lan moo ko jar ñii ñenn ñi seen.